monsieur Samba Djalimpa Badji ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. yow nga yor kàddu CORED tey jii euh, gannaaw nag euh, bureau bu njëkk euh, bureau bi nga xam ne taxawal nañ ko te weer a ngi nii gis nañ ne daal dina fësal six décisions yu jëm ci anam gi journaliste yi di liggéeyee nga wax ñu ci tuuti. waaw ma njëkk leeral ni li ñu installé weer wi ñu génn weeru septembre tribunal de pairs bu CORED conseil la mhm. maanaam euh, euh, ëttu attekaay bu nekk ci CORED euh, dafa nekk benn organe indépendant boo xamante ne dañoo tànn ay journalistes yoo xamante ne dañoo yaakaar ni naw nañ leen ci métier mi ñoom ñooy toog fu ngir àtte yenn plainte yoo xamante ne dafa am ñu koy indi correct di euh, déposer plainte contre ay journalistes wala contre ay médias mm-hmm. donc euh, bureau boobu euh, tribunal des pairs boobu bi ñu ko installé fekk na fa déjà ay plainte yu fa nekkoon moom it am na ay dossiers yu mu jëlal boppam mm-hmm. mu def ci saytu liggéey ci léegi décision yooyu lañu ñu génnee ci àllarba gi mm-hmm. waaw. décision yooyu la sax ngeen ne six la ñu bëggoon a xam euh, yan la. waaw décision yooyu euh, six décision yi euh, ñu ngi ko def ci ñaari. Euh, autosaisine maanaam ñaari dossier yoo xamante ne tribunal des pairs moo ko jëlal boppam euh, ak euh, quatre plaintes mhm. ñaari autosaisine yi benn bi ci benn déclaration boo xamante ne ab député moo ko defoon mu jur fi coow sax ci réew mi muy woo pël yi ñu jël ay jaasi ngir défendre deuxième troisième mandat Macky Sall euh, ci wàllu woowu nag correct dafa top site internet bi du actu deux cent vingt et un point net euh, mu artu ko jox ko lu ñu naan avertissement ndax euh, tribunal des pairs dafa jàpp ni anam yu mu siiwalee kàddu yooyu nekk na anam yoo xamante ne mën na yee fitna ci ci réew mi ñu daal di ko artu wax leen ni journalisme boo ci liggéey war nga tamit moytu yenn yi te am sens de la responsabilité mm-hmm. beneen autosaisine bi Euh, tamit euh, ñu jox ci avertissement journaliste bi di Madiambal Diagne euh, ndax tribunal des pairs bu CORED dafa jàpp ni am na ay kaddu yu mu yëkkati teg ko ci kii di juge Souleymane Teliko te tribunal des pairs dafa jàpp ni kaddu yooyu daal nekkul kaddu yoo xamante ni war nañ ko teg ci ci nit rawatina bu fekkee dañ ko bind ci ab journal. Hmm. Euh, mu am aussi ñeenti plainte euh, ñaar yoo xamante ne euh, kii benn waay bu tudd Birahim Dieng moo ko déposé contre journal L'As ak journal ak site internet Dakar Actu hmm. moom nag dafa ne ñoom dafa am lu ñu lu tuuma bu ñu teg ci moom te mu bu mu bindee nag tontu bi ñoom dañ ko bañ a publier hmm. tribunal des pairs nag teg leen daan ñoom ñaar di artu daan bi mooy dañ leen partout avertissement ndax euh, dafa fàttali ñaar euh, yéenekaay yooyu nii Euh, code de la presse euh, dafa may euh, yoon wala dafa ci droit de réponse dafa di cër boo xamante ne code de la presse may may na ko bépp nit boo xamante ne dañu teg tuuma ci yow mhm. am nga tontu te journal bi war na publier loolu Euh, mu am benn plainte boo xamante ne benn waay bu tudd Abdoulaye Cissé moo ko déposé contre journal Le Quotidien quotidien mhm. euh, ci benn article bu ñu bind ci euh, juge Souleymane Teliko muy ñaawlu liñ ci bind moo tax mu déposé plainte waaye tribunal des pairs dafa ne plainte bi c'est pas recevable maanaam plainte bi baaxul ndax euh, moom nekkul koo xamal nekkul ci du ci moom la ñu bind donc bu fekkee binduñu ci ñoom moom am mënul euh, amul sañ-sañ déposer plainte moo beneen plainte boo xamante ne euh, benn waay bu tudd Kilo euh, moo ko déposé contre journal bi di l'Observateur mhm. moom it nee na dañ fam lu ko tuuma ñu bind pas de réponse waaye journal bi publié ko waaye si wàllu woowu tribunal des pairs dafa jàpp euh, journal l'observateur mu ngi moo nekkoon ci dëgg mm-hmm. ndax moom euh, Sidi Lo lu mu ne tuuma la euh, nekkul tuuma ndax l'observateur bindul lu mu leen di lu mu lu wax ni moom lañ bind ci ñoom donc loolu mm-hmm. waaw oui oui allez-y donc loolu loolu moo nekkoon ci lu gàtt daal euh, décision ñe euh, juróom-benn décision nga xamante ne tribunal des pairs jot na ko joxe. jot na koo joxe tey jii bu euh, yéenekaay bi insister wala bu organe de presse bi insister ci li nga xam ne moom la tribunal des pairs avertir ko lan moo ko ci mën a xaar. waaw code de la presse ak ak statut ak règlement intérieur bu CORED am na sañ-sañ yu mu jox tribunal des pairs ak CORED ci daan yoo xamante ne mën na ko. ko teg ci euh, yéenekaay wala ci journaliste daan yi mun na doore euh, ci avertissement mooy bi ñu bi may wax nii euh, artu mooy daan bu gën a néew mun na nag yéeg yéeg ba yéeg foo xamante ne taskat xibaar bi journaliste bi mën nañu nangu kartam maanaam carte professionnelle bi ñu yor mun nañ ko retirer ñu nekk nag bu ñu moom mënatul liggéey comme journaliste donc loolu yëpp bokk na ci li nga xamante ne moom la BRT bi daan yooyu la mën a joxe waaye ñun yaakaar nañ ni euh, duñu yegg foofu ndax liggéey correct tamit dafa bokk sensibilisation te yaakaar nañ bi ñu continuer di sensibiliser nit ñi ñu euh, ñaawlu ci presse bi lu bëri dina wàññeeku. ban possibilité la CORED tribunal des pairs euh, bu CORED jox organe boobu nga xam ne moom lañ joxoñ baaraam tuuma pour mu def recours. waaw waaw non fu mu toll nii képp koo xamante mu nekk euh, organe de presse wala mu nekk équipement presse bu fekkee décision waaw bu mm-hmm. fekkee décision bu tribunal des pairs joxe neexu la mm-hmm. mun nga def appel ndax euh, mun nga def appel ndax tribunal des pairs dafa am euh, ñaari ñaari ñaari ñaari instance première instance ak deuxième instance mm-hmm. maanaam dafa am ñaari Euh, ëttu àttekaay yoo xamante ne benn bi boo d'accord nga ci lu mu wax nga mun nga euh, def appel pour ne man atte biñ ma atte neex moom nañ ko xoolaat bu baax ndax euh, lii ak lii ak lii ànduma ci am na tamit monsieur ji li nga xam ne mooy cutus gi ñuy laaj balaa nga am sa carte national de presse ñu dégg leen ne bientôt dingeen di ngeen procéder ci li nga xam ne mooy joxe ji lu ci des waaw lu ci des soriwul noonu ndax euh, ci euh, li nga xamante ni moom laaj journaliste bi bëgg am carte la presse bokk na ci kitus te kitus euh, dañ ne dañ laaj correct mu koy joxe mhm. mais bi li ñu koy jeexal mbir bi ci suñu wàll wàllu correct mhm. dafa fekk fu mu ba léegi amaguñu siège maanaam amuñu dal ñu nekk euh, ba tax na euh, fu mu toll nii dañoo décider installer benn permanence euh, de la presse boo xamante ne dinañ fa nekkangum ngir mën a yombalal journaliste yi bëgg jot ci PITUS donc euh, dinañ leen annoncé euh, date bi ñuy démarré euh, ku ñëw maison de la presse ñu fa fekk benn permanence correcte pour mën a jot ci PITUS bi ñu war joxe journaliste ñu boole ko ci dossier ñu laaj pour déposer carte nationale de la presse. wax ci élection présidentielle yu suñuy dëkkandoo yu ci mel ni Guinée ak Côte d'Ivoire Guinée la ñuy tàmbali ndax ñoom ñoo def élection ba pare ban taxawaay nga gis presse sénégalaise gi mu am. ci euh, yooyu la élection waaw ci élection yooyu moom euh, am na ci ñoo xamante ne euh, def nañ seen liggéey comme ni waree am na it ñenn ñoo xamante ne seen liggéey xaw na tey mu am sax euh, benn euh, décision benn non pas décision mais benn communiqué bu correct génne woon pour euh, delloo si xel journaliste yi ci liggéey bi ñu war a def ci élection yi ba tax na waa correct xalaat ni ah loolu titre boobu xaw a doy waar ba ñu bind communiqué di di di delloo si xel nit ñi am na ñeneen it ñu def benn ay liggéey yoo xamante ni daal jàppoon nañ ni ni ko defee daal am àndul ak euh, euh, liggéeyu journaliste euh, ba tax na ñu génnoon communiqué boobu pour daal delloo ci xel ñi mais am na tamit journaux yoo xamante ne ñoom def nañ seen liggéey nu waree. Mhm. ñuy waajal bu Côte d'Ivoire tey jii ban woo ngay jox ñooñ le di professionnel des médias yi. waaw li may fàttali jamono ji suñu sous région bi dëkk yu wër Euh, daanaka am na fitna bu bëri ci wàllu élection yi donc ñu ñaan ñu ne ñu bañ a ñu bañ a bokk ñi tax ba fitna googu euh, gën tar euh, maanaam ñu def ñu waree ñu bañ a bokk ci ñi yee te ñu bañ ñu bëgg a yee ñu jaar ci ñun pour yee def naa loolu daal am na solo trop ngir jàmm gën a am ci fii fii ci sous-région bi ñu Afrique de l'Ouest Mm, tey jii ndax jàppoo ne euh, presse sénégalaise euh, am na taxawaay gu am solo gi mu amoon ci yooyu les élections ndax bu bu ñu xoolee Guinée tey journalistes yu ci bëri euh, wala organes yu bëri bàyyi ñu leen woon ñu def seen liggéey nu mu waree. Euh, waaw mais ci loolu euh, man sama sama kàddu mooy euh, tamit il faut ñu prendre en compte li nga xamante ne dëkk bu nekk nu muy doxee ak loi yi fa nekk ndax Sénégal loi terewul média yi dem ci bureau de vote yi bu ñu publier résultats yi ñoom ñu siiwal ko wala bu ñu compté ba pare média yi siiwal ko ci yeneen dëkk yi mel ni Guinée foofu médias yi droit def loolu foofu seen loi moo ko wax kon naa ni euh, loolu moo am solo nañu xam dëkk bu nekk lan la loi di wax et euh, ñu jëm ci tënk. Monsieur Badji euh, Samba Djalimpa merci beaucoup.